بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت والصلاة والسلام على من شرفه الله بالرسالة التي سمت وعلى آله وأصحابه الذين هدى الله قلوبهم للإيمان فاهتدت ورضي الله عن الأولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله أسوة حسنة إخوة الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكو جوليت يني دغلو تي سفينة اف ام 98.2 غور اك جيجين ماك اك ناو كوتي نه نيغي لاي نيو تي سا تور اك سا سانت di leen ziyaara di leen baalu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ci mbaaxam yal yàlla boole baal di ko ñaan yal na ñu nangul li nu koy jaamu te su ko nangoo yal na ko nangu ca na mu toll te bañ koo nangoo ci ni ñi toll ñun ci barke yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokum talibé al hajj abdul aziz fall delu ci wat ci dara ji ci sen waxtanu tasawuf di nuyu di ziyara suñu directrice soxna ñu maba di ko ñaanal yàlla taysir ak najaax ci liggéey bi ñu ko dénk di beral nak nuyo ak ziyara sunu xarit di sunu soppe di sunu lépp di xaaji Cerno Hamidou Yoro Bane ñu di ko ñaanal yàlla lépp loo xam ni fa tabaarakallaahu mën na ko ren yal na ko yàlla fulal mu mën lu ko ëpp déwén ndax koo xam ni loo am delloo ko ci jaamu yàlla yi fa tabaarakallaahu jar nga ñaanal yàlla mu ko koy ñaanal di ko ñaanal njabootam mu mel ni sunu waxtaan bi weesu ñu ngi woon ci li ñuy wax ak tahajjud wala tashiid bu la neexee wala qiyaamu layl mu di jóg guddi delloo sa bopp ci yàlla fa tabaarakallahu yàlla subhaanahu wa taala damay wax ni moom rekk mooy li nga xam ni moo neex ndax lu mu mën a doon nga jàppe ko lu neex loo ciy gën a sore mu lay gën a sàppi waaye yàlla rekk ngay xuus loo ciy gën a sore muy gën a neex ci yow nga di ko gën a namm te jullit war na yegg ci niveau dootul jaamu yàlla ngir àjjana dootul jaamu yàlla ngir ragal safara waaye dafay jaamu yàlla ngir sant yàlla fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ku ne am nga xarit boo xam ni bu anniversaire am jotee nga wut cadeau yóbbul ko waa nga dem pâtisserie xool gâteau bu sedd sa xol nga jënd ko yóbbu ko pour wan ko ni mu toll ci yow baa nga defal ko say doom baa su la yàlla joxee teraanga bala ngay xalaat kenn nga xalaat sa ñaari way jur ñoom ñi sabab sa ñëw ci àddina ci mbubb yàgg ci dàll yaag ci dëkkuwaay yaag ci dem màkka yaag ci teraanga yi dul jeex fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin xalaat say bokk kenn ku ne nga fas yéene koo teral pour mu gërëm waaw booba nag yàllaa nga toog moom di xaar waaw moom mi nga xam ni moo bind moom moom moom ma nga toog di xaar ba xam moom lan nga koy sédd su ko defee nag boo tereelee way jur teral yu bokk teral soxna teral doom teral wëllëre xarit soppe bàyyi yàlla lépp yàqu ndax bala nga naan naam ne fa su ko defee nag yàlla amul lu ko dàqal nga tëdd ba xaaju guddi li gën a neex ci dund nga di ko def nit ñi ne ci nga muñ ko ak la muy neex neex te moo di nelaw nga jóg sellal sa yaram laabal sa xol sol sa yére yu laab toog ci barab bu laab ni ko allahu akbar mu dégg ko ca kaw xam xar sa xol xam ni lii nga wax dëgg la ci yow waaw ah, wan ko ni ko rek yëg nga ko nangul nga ko yàlla amul fa tabaarakallahu lu gën a rëy loolu ci jaamam moo tax ñi nga xam ni nag loolu dañu ko def muy seen farata fa tabaarakallahu faw nag yàlla di leen beral loxo di jaar ak ñoom fu kenn dul yëg di leen déey lu kenn dul dégg di leen won lu kenn dul gis tàmbalee ko ci àddina jëme ko nag àllaaxira te damay wax ni jaamu yàlla waxtu yépp baax na waaye nag diggu guddi nit ñi yittewoo nelaw foofu la dàqe misaal mi moo di gis nga mburu lu tax mburu ku xëy moom ngay njëkk xalaat waaw sama mbokk yi sant ñang balaa ñuy sànni ñaari rakkay fajar xalaat ndax mburu am na walla déet buur baadoola ku am ku ñakk ñépp ku xëy mburu ngay njëkk xalaat am na réew yoo xam ni bu nu yokkee bi un franc ci ci ci ci mburu peuple bi wàcc ci mbedd mi rayante ndax fonk gi nu fonk mburu mais lan moo may mburu boobu bayre boobu barke moo di ki ko liggéey dafa xaar ba waxtu wi nga xam ni li gën a neex ci dund nit ñaa ngi koy def te moo di nelaw moom mu muñ dagg ay nelawam nekk ca fuur ba farine bay taq ci yaram ba nga weex tàll boole kook tàngaayu fuur ba ñaq ya waaw nekk ca du noppul du toog waaw ma ngay wëlbatee ko wëlbatiwaat nit ñaa ngay nelaw moom mu nekk ca waaw waxtu wu barkeel woowu liggéey mburu barke waxtu wa moo topp mburu ba ku yeewu mburu ngay njëkk a xalaat waaw su barke boobu mënee topp mburu kon jaamu yàlla bi nga xam ni dafa bàyyi ba waxtu woowu boulanger bi jóg moom mu jóg moom soxlawul mburu soxlawul leneen lan la soxla moo di ngërëmu yàlla subhanahu wa taala عونك حولك مع قوتك وما وهبتنيه من نعمك توفيقك المرجو مستعينا بك وانت خير من معينا diwoo yàlla kooku war nga xam ni su yàlla dikkee ni nit ñiy toppe mburu di ko yittewoo danañu ko toppe nu ko raw yittewoo ko lu ko raw soppe ko lu ko raw ndax yàlla mel noonu moom soo ko nekkalee rek mu nekkal la fa tabaarakallahu moo tax yàlla subhanahu wa taala wax yont yàlla daawud alayhi salaam ni ka yaa daawud kadaba man iddaa mahabbati wa ida janna alayhi leylu naama anni alaysa kullu xabibin yuxibu alxalwata bi xabibihi yàlla ni ko yow daawuda man yàlla mënumaa nangu cofeelu jaam bi nga xam ni nee na maay soppeem nee tëbu te bu guddi muuree lëndëmam moom itam mu dem mottali ko lëndëmu mbàjjam fas yéene nelaw mu ni ko kooku mënumaa nangu cofeelam ci man mu ni ko daawud man yàlla jàpp naa ni xarit bu ne ka nga gëna a sopp la nga yàkkamti moo di wéet ak moom ñëpp dem yàgg moom rekk nga wéet ak moom waaw kon naka la jaam di wootee ni sopp na ma man yàlla ba noppi nelaw guddeem lépp bàyyi ma man yàlla waaw xarit xarit ak soppeem la ko dàqal moo di ñëpp dem ba kook soppeem mu wéet ak moom mën a waxtaan ak moom mën a déey ak moom fa tabaarakallaahu ولقد خلوت ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النثيم إذا سرى gis nga ishaaraat yooyu nitu yàlla yi di wax ñoom ñaar dañ ko xàmmee woon te ñaar barewul ñu ko xàmmee mooy wéet wéttaliku ak wéttaliku wéet am na koo xam ni boo ko wéttalee yaa ko wéetal yàkkamtiwu lu dul nga dagg waxtaan wi ñibbi ba mu delloo buntam ba jàkkaarloog yàlla ni ko allahu akbar waaw moom wéetaay la taamu bu wéetee rek wettiliku waaw ndax fa tabaarakallahu ca lay jële li muy lu muy lu muy dëgëre personnalité waaw loolu moo tax ñoom wéet moo leen daqal waaw te metti na waaye boo góor góorloo ba ñeme ko rek tabaarakallaahu daal di obtenir ay résultats yu wóor yoo xam ni bu la kenn xamul it yow nga xam sa bopp waaw moo tax koo gis ñemewul wéetaay rek bu ñu leen nee nitu yàlla la dañu ko koy jiñ waaye doonu ko fa tabaarakallaahu am na ñoo xam ni nag wéttaliku wéet lañu xam waaw mooy balaa ñuy kontaan mbooloo mi wër leen nan leen yéen ay xutbu yéen ay xawsu waaw yéen ak yonent bay fanaan waaw asamaan juróom-ñaar ngeen di añe waaw di leen bal di leen kañ waaw ñu yëngal bopp te seen conscience nga leen jonkonu naan leen xam ngeen ni li ñuy wax dara nekku ci bu defee ñooñu duñu bëgg mbooloo ma tas ndax bu mbooloo may tas bu nuy ñibbi seen biir néeg rek conscience bi jonkan waaw ni ko trompé nga sa bopp lañ la waxal ci penc ma dara nekku ci waaw dara nekku ci nekk lu may topp sa bakkan bu defee nag xam bi ci dàq mooy nga xam sa bopp don magum lëndëm bula ken dajul nga daj sa bop waaw waaw fa ahsanul khaliqin lolou motax yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamu wa tollo ci degeural katanu ruham liko yàlla won wonuko ben mbindef ci kaw suuf waaw waaw jibril alayhi salaam fekk ko ca xaaru xiraa gëddu ko waaw waaw sonal ko mu ñibbi këram di lox di rafrafi waaw naan zammiluu nii dathiruu nii sàng leen ma di lox waaw ñu sàng ko defe ni nelaw a ci des yàlla ni ko yaa ayyuhal muddammil qumil layla li ko yàlla won wanu ko benn mbindeef ci kaw suuf waaye moom it lu ko yàlla teg rek nangul na ko yàlla waaw yaa ayyuhal muzammilu waaw gis nga ma nga ko woowee ca xaal ba mu nekkee yow moomu ñu sàng waaw yow moomu di woote pour ñu sàng la waaw qumil la jógal waaw jógal guddi waaw yow nelaw guddi xaraam na ci yow mutlaqan jógul pareeguma ci yow dafa am lu ma bëgg def ci yow waaw ah, te guddee ma ci dàqal waaw ah, bi sallallahu alayhi dem ca ba àgg fu jéggi dayoo yàlla xool ko xam ni jàmbaar piir la waaye nag nit la na ah, dem ba tànk yi new yi ñu naan ko hawwin alayka ya rasulallah a doon noppal sa bopp lu tax ngay teg sa bopp bi coono waqad gafara allahu laka ma taqaddam min dambika wa ma taaxar yàlla nee na la baal naa la lu loo defoon ak loo defagul lu tax ngay teg sa bopp bi coono mu ni looloo tax nag looloo tax li mu ma baal li jëkk ak li ma defagul te defalu ma ko dara lu ko jar moo tax ma war ko sant afala akunu abdan shakura afala akunu abdan shakura yàlla xool ko nag yërëm ko ni ko illaa qalila waaw waxuma nag léegi nga taxaw guddi gi lëmm waaye nag li ëpp ci guddi gi daal nag ma ko jox illaa qalila waaw nisfahu ni ko xaajal guddi gi ñaar boo nelawee benn ba sa ba sa énergie yaram dellu siwaat nga jóg bi ci des nag nga jox ma ko waaw ndax am dafa am lu ma namm def ci sa ruux te foofa laa ko mën a jaare aw inqus minhu waaw ko yow sax nelaw genn wàllu guddi xaraam na ci yow waaw wàññil genn wàll gi def ko ñetti xaaj nelaw benn bi jox ma ñaar yi aw zid alayhi walla sax nga dolli ko nu mu gën a baree rek gën a baax waaw tabaarakallah ahsanul xaaliqiina ni ko nag warattilil quraana tartiila waaw kon nag alquraana ngoog alquran a ngoog dimbali koo ko pour dëgëral sa ruux waaw waaye tartiilan nag laa wax gis nga alquran dafa am ñaari njàngin ñaari jàngin la alquran am jànginu jaamoo ko yàlla ak jànginu comprendre li ci nekk bokkul waaw ñu bare dañ koy jaawatle fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin wa rattilil qurana tartilan tartil mooy loo xam ni soo ko dee jàng sa xel sa xol suy cir lépp a koy teewlu te soo ci jaaree ba àgg boo wàññeeku waatee defal effort pour déggaat ci lu wuute ak la nga ci jëkkoon dégg ndax loolu mooy alquran mooy loo xam ni saa yoo ko répété rek mu joxaat la leneen lu bees lu bokkul ak li mu la jëkkoon jox moo di alquran mu mel def ko ni waaw lu tax naafile yi jàng alquran bi yëpp nga sant ma ko ci benn guddi gi yàlla ni ko waaw bu ñëpp yemee cër am ñu gedd seen bos inna sanulqi alayka qawlan thaqilan waaw ni ko ndax programme bi ma lay yen diis na waaw diis na du ma ko essayé ci keneen ndax du ko àttan yow nag yow laa ci yaakaar waaw inna sanulqi alayka qawlan thaqilan wax yu yomb la dékku إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا آه، نيك نجل بينو قدي بويسو آه، خاج بچتوب نك هي أشد وطئا وأقوى مقيلا كمو غنى دل مو غنى تاي تيلا ليني آه، دي غنى ubbeeku ci lay gën a libre ah tabaarakallah ci la communication di dàq ah tabaarakallah sanul xaliqin إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك nag fi nahaari sabaxan tawila waaw soo ma joxee sa bopp nag guddi gi bu bëccëgee nag nga wuti sunguf wuti tàndarma wuti ndox wuti leneen loo dëgërale sa yaram ak sa njaboot waaw sabaxan tawilan ko bu ci yem de loo gën a yokk rek effort ma jël man yàlla wadhkur isma rabbika waaw wadhkur isma rabbika ni ko benn aaya sax soo ko dee jàng na ko tàmbalee bismillahi irrahmani irrahim waaw wa tabattal ilayhi tabtilan mu ni ko gis nga soo bëggee ma kontaan man yàlla lépp loo xam ni aju na ci yow mbaa nga aju ci moom bu set ko dagg dagg di wacc di gën di waaxu di jëm ci man yàlla رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا نعم، نكون نخ كو سن الكدول من رك جاروكو نكون نخ ما موم پنكو موم صوي لكي ديگن تبي من يالا ماي بروم كون دي سن نو پور جوت چي لولو تردل سا بوبولا فخيل جوت چي يالا مي موم لب كو ام يالا لو نيكاتي motax ngay gis ñittu yalla yi seen formule yooyu duñ ci ñaan alal duñ ci ñaan lenn njëggalu yàlla leeru yonent bi ak lu leen jegeel yàlla seen boroom lañ cay ñaan ndax xam nañ ni ku am yàlla yaa moom àddina bi ndax àddina bi yàllaa ko moom kon li gën a jafe fexeel am ko te moo di am yàlla waaw wadkur isma rabbika wa tabattal ilayhi rabbul mashriqi wal maghribi laa ilaha illa huwa fattaxiduhu wakila ko koo wéeru yow muhammad koo wéeru kudul man yàlla koo wiiru kudul man rek danga ànd ak moom daam kon nag wiirul ci man fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin bu nu ko toppee saar boobu la ñuy noor nga gis fa tabaarakallahu am na jigéen ju yàlla tereel mu di rabiatul adawiya daan na ci bëccëg bi ak guddi gi daan na ci naafile junniy rakka جوني راك تي 24 يي سو باري دا فاي واخني والله لا اريد بها ثوابا ولكن ليثر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للانبياء عليهم الصلاه والسلام انظروا الى امراه من امتي اهذا عملها في اليوم والليله رابعه جيجين 24 heures yi junni rakk lay naafila su paree wax ni wallahi junni rakk yi ma naafila soxlawu ma ci yoolu yàlla soxlawu ma ci benn tuyaaba lenn rek laa ci jublu mooy yonent bi tiitaroo ko ci ci ci kanamu yeneen yonent yi moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàkkoo ko ci kanamu yeneen yonent yi ni leen xool leen as njigéen a ngi nii bokk ci sama xeet lii mooy li li lii la may la جني راكا تي 24 هي خولال بوبو تولو واي تبارك الله احسن الخالقين كو ديفه نك لمصاف دال كاكو ماتيا كو خام سيد ابراهيم الدسوقي دو فدان وخنان كيب كو خامني فراتال nga جوغ نجل warla waral ci sa bop di jéggulu yàlla yàlla dina dem ba dindi kiiraay li dox sa digganteeg al anwaar te moo di leer yi su yàlla dindee muree kiiraay booba nga jot ci leer yi yàlla dina dem ba taal sa xol def ca jantu xam-xam ngay xam loo xam ni say maas kenn xamu ko ci di dégg loo xam ni kenn déggu ko ci lu tax waxtu wa nga nangoo sa bopp ci lal mbàjj mi bàyyi soxna saak soppe yépp dem tànn benn soppe jox ko sa bopp te moo di yàlla subhaanahu wa ngi am ñu ko mën ci góor nag ak ci jigéen tabaarakallaahu góor gi zunnuun zunnuun almasri yi nitu yàlla bu mag boobu ca Cham fa jëkki-jëkki rek gis benn jigéen xam nga li ñuy wax ni kuy jóg guddi di jox sa bopp yàlla bu bëccëgee boo nekkoon ci biir junni nit dana am màndarga bu ñu lay xàmmee ndax dana am lu la wuutaleek ñoom màndarga ba nag ñëpp duñu ko xam waaye am na ñoo xam ne bu ñu lay xool xam ni am na lu la wuutaleeg ñi xam ni li nga reere bokkul ak li ñu sant ñang reere waaw ah, am na ñoo xam ne defe nañu moom lekk rek moom mooy reer am na ñeneen ñuy reer ci leneen lu dul lekk waaw ah, tabaarakallaahu muy ah, mooy naafile ba sa yaram tàng waaw zikkar yàlla salaatu ala nabi jàng alquran ba sa biir fees tabaarakallaahu mu gis jigéen bi na xool ko xam ni kii du jigéenu kese kese mu ni ko waaw soxna si foo jóge mu ni ko min indi aqwaamin tatajaafa junubuhum an il madaja ni ko man maa ngi bokk ci kuréel boo xam ni kuréel boo xam ni bare na lool lu seen wet di sore seen lal ah maanaam lu néew lañuy tëdd guddi mu xam ni kii jigéen ji ci ñuy jox boppam yàlla guddi ci la bokk mu ne ko waaye na turi diin waaw foo jëm ak kan nga soxla mu ni ko uridu rijalan la tulhihim tijaratun wala bayoon an dicrillah mu ni ko góor gi ma soxla mooy góor ñoo xam ni commerce jënd ak jaay ak wut bénéfice bu bare du dox seen digganteeg jox seen jox seen bopp yàlla xoolal boobu tolluwaay ci jigéen ko maa nga jóge ca ña nga xam ni lu néew lañuy ñuy wéer seen wet ci lal bi guddi maa ngi soxla góor goo xam ni jënd ak jaay ak calculer bénéfice du tee mu jox yàlla la mu moom waaw waaw qawmun humumuhumu billahi qad ulliqat fama lahum himamun tasmu ila ahadin ni ko mooy góor ñoo xam ni seen yitte yëpp ñu ngi ko aj ci yàlla waaw seen yitte yëpp ñu ngi ko jox yàlla waaw sedduñu ca keneen فمطلب القوم مولاهم وسيدهم يا حسن مطلبهم الواحد للواحد الصمد ونيكو دال سين سانغ بوبو دي وخي ني وخي يالله سبحانه وتعالى غا خاني مولين بند تيرال لين موم ريك لا ني سوخلا بور جوت سي موم موني ньо ييو ньо ييو ньо يوتو لي جارا يوتو تامودو يالله سبحانه وتعالى كو دافي نك ليونت يال محمد صلى الله عليه وسلم وخان موتي نيك ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله لمن الهن الكلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام النبي صلى الله عليه وسلم نينا اجنا امنا اي امنا اي سويت يو خمني nee na boo nekkee ca biir di gis biti boo nekkee ca biti di gis la ca biir suite yooyu mu ni yàlla nga ko préparel daf ko def spécial pour ñi nga xam ni yar nañu seen kàddu ba mu yiwe ba duñu choqué kenn pour ñi nga xam ni boole nañ ca lu leen yàlla wërsëgal ñu bokk ko jaamu yàlla yi tereel leen ci boole ca di wóor bëccëg pour jot ci yàlla boole ko bu nit ñi nelaw ñu jóg jox jox seen bopp yàlla ñooñu la yàlla réservel suite yooyu looloo tax nitu yàlla yi jàmbaar lañu danañ ci dem a dem ba su la nelaw notee nga xam ni jóg waxtu ijaaba yomb la dem nañu ba trouver ay formule yoo xam ni soo ko dee tëdd di ko ñaan yàlla waxtu wa yàlla soxlaa jàmm ko jox boppam bu waxtu way jot rek yàlla di yebal mbindeef bu la yee waaw te boo yeewoo da ngay ànd ak cawarteeg yaram pour mën a jox sa bopp yàlla waaw tabaarakallaahu ko defee nag moo taxoon ñu daan wax naan allahumma laa tuamminna makrak wala tunsina dikrak wala takshif anna sitrak wala tajalna min alghafilin ñu ko yàlla ñu ngi lay ñaan nga may nu ñu bokk ci ñi nga xam ni fu ñu toll ñu ngi tiit duñu wóolu mukk waaw duñu wóolu mukk waaw ndax ci volcan la ñuy taxaw ñu ko yàlla boole ci ñi nga xam ni seen xel ak seen xol du jóg ci yow mukk ñu ko yàlla ñu ngi lay ñaan sa malaanum sutura boobu nga xam ni kooku muur kenn du gisatu lu ñaawam yàlla nga ñu ko muur ñu ko yàlla ñu ngi lay ñaan nga musal ñu bu ñu boole mukk ci ñi saggan te moo di ñi nga xam ni lu néew la ñuy tudd yàlla mbaa faf sax duñ ko sax tudd nag teg ca ni ko allahumma baasna fi ahabbi saati ilayk yàlla ñu ngi lay ñaan waxtu wi la gënal ci waxtu wi bu jotee yàlla nga nu yee xatta nadkuraka fa tadkurana wa nasalaka fa tuctiyana wa nad'uuka fa tastajiba lana wa nastaghfiraka fa taghfira lana waxtu wi la dàqal ci waxtu wi daal ñu ngi lay ñaan bu jotee yàlla na nga nu yee bu ko defee ñu tudd la ca waxtu wa nga tudd ñu ndax koo tudd turam dootul fay wa nasalaka ñu laaj la fa tuutiyanaa nga jox ñu ndax waxtu woowu ca ngay gën a tabee wa nad'uuka ñu lay woo fa fatastajiba naa nga naan ñu naam waaw maa ngi nii sorewuma leen waaw wanastaxfiraka fataxfira lana ñu lay jéggalu sunuy bàkkaar nga diñu jéggal waaw wax nañu ni kuy tëdd ñaan ko rek bu waxtu wa jotee dana am lu la yee tabaarakallahu bañ a def nag sama sama wëllëre wa sama wëllëre wa doomu ndar ba waaw ni ma man damay nelaw mën naa tegale ñetti fan di nelaw du ma yeewu ma ni ko loolu xanaa munta ne mu ni ma wallaahi xanaa dooma ci dimbali ma ni ko ah, am naa fi lu ma sàcc ci mag xanaa ma jox la ko ma bind ko jox ko ko ñu toog ñetti fan ñu gise mu ni ma dinaa la delloo sa këyit ma ni ko lu tax mu ni ma ba ma ko jàngee ba nëgë ni mënatumaa nelaw guddi ma tegale naa ñetti fan mënumaa nelaw kon dama lay delloo sa këyit fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin mu ni bu réveil bi sonné rek ma njëkkante rek bës ko mu arrêté ndax day fekk nelawaguma te bëgg naa nelaw mu ni waaye noonu laay xoole di xoole ba faf rek ma jóg fa tabaarakallaahu kon ah mbir maa ngi noonu waaw tahajjud waaw wa min al layli fa tahajjad pour mu jox la bopam il faut nga jox ko sa bop ابو يزيد البسطامي رضي الله عنه فا نيك خالي بو توتي دير دير تيري با اغي سوره المزمل في يالا دي وخه يننتي بي يوم مودي سانغول نان سانغلين ما جوغل موني واو باي من هذا الذي امره الله بقيام الليل باي كي يالا دي وخ نان كو جوغل نلو غودي حرام ما سي يوم kan la bàyyi bi ni ko hada nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kooku mooy sunu yonent yonent yàlla muhammad mu ne ko waaw fa lima lam tafaal kama faala muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ko waaw bàyyi yow du ma la gis ngay def comme moom lu tax dooy jóg guddi di jaamu yàlla comme yonent bi ni mu koy defee bu doon ñun la tey da ngay fël gémmiñu xale bi ni ko danga dooj gone day yem palaasu gone waaw bu ma jaxaseeg yàlla de loolu nga cay teg mu ni ko lu tax doo def ko moom mu ni ko daaka amrun sharafahu llahu bihi bàyyi bi rafetu lay lay rek la tabarkalla la mu ni kaa loolu nag jagle la teraanga bu yàlla terale yonent bi la moom jagleem la doom ji ni pat continuer di jàng ba ci fi yàlla di waxe yonent bi ni ko inna rabbaka yaalamu annaka taquumu adna min sulusayi llayli waaw wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak waaw yàlla kañ yonent bi ni ko yitte man ni ko ngi lay gis guddi gi nga nangu sa bop ci ñëpp jox ma sa bop mu ni ko li ma ci daqal man yàlla nag mooy wàll nga ci sax ñennat ci ñi nga àndal ci say saxaaba wàll nga leen ci waaw bu guddee boo leen bettee rek ñu xam ni malaaka yóbbulu leen dara waaw ñoo daan wax nan ko yaa rasulallah inna la soborun fi lxar saduqun fi lliqa shujaan fi nnahaar ruhbaan fi lleyl fasir bina ala barakatillah laalla allah yurika minna ma taqirru bihi ayunuk yooyu saxaaba kilifa danga koy roy taxaw ni ko yaa rasulallah bëccëg jotee naaj wu tàng ak coona duñu te xare waaw noon yu bareek armée yu bare duñu tee def leen faas ndax ragaluñu kudul yàlla ni ko waaye nag bu gudd jotee malaaka duñu ko yóbbul bi xale bi jàngee wa taifatun min alladina maak ak benn kuréel ci ñi ànd ak yow yonent bi mu ni ko man alladina man alladina qaala allahu fi xaqihim wa taifatun min alladina maak man hum haula ya abati ñii ñooy ñan yow sama baay mu ni ko hum ashaabu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko ñooy saxaaba yonent bi مونيكو فليما لم تفعل كما فعلوا واو باي لو تخ دو ديف كوم صحابه يي بوك كوم يننتي بي اوبل لا نغوري صحابه يي بوك منيكو ها الله قواهم الله على قيام الليل منيكو دوم ني يالا مولن ماي كاتان غنيو من جوغي غودي ديما جامو خالي بي نيكو يا ابتي لا خير في من لا يقتدي بمحمد واصحابه نيكو باي من دال أه mënuma nangu mbaax mënuma nangu yiw góor goo xam ni royoo yonent bi royoo saxaabaam mënuma ko nangu bàyyi xanaa waar na baay bi ci la baay ba doxe bu gudd jotee mu jóg di naafila moom xale bi mu dem ba ñu ko bàyyi allim ni salaata layl dama bëgg nga jàngal man nu ñuy jàmmoo yàlla guddi mu tere ko ko ne ko innaka saxiir ni ko xale nga mooy luy xew léegi rek naan gone nga boy jamu yalla ñu ngi la léegi nga dee léegi nga gatt fan man fanu xale mo gën tabarkal xale bu amagul bakkaar boole ci di jamu yalla bu gatté fan du ñee mag mu fooye dundam ba mu jeex mu dogo jox bopam yalla waaw taxawalu taxawalu taxawalu ba mbedd mi soxlaatu la say xarit ñu la say jongama ñu la kenn soxlaatu la bëñ ya dem bëti ya dem nopp ga dem tànk ya bañ lépp nag ngay ngay rang di ju di di buuxante ci jàkk yi nag waaw conflit bu am ci jàkk yi rek ñoo ñoo ko indi waaw ndax lañu tàmmoon ca mbedd ma la ñuy indaale ci biir jàkk ji waaw ko di xëccante noddu yaag keesu jàkka yaag waaw conflit bu am rek ñoo ko indi ci jàkk yi waaw waaw nit da ngay jox sa bopp yàlla ca ba ngay ndaw ku dénk sa ku dénk sa ndaw yàlla yàlla sàmmal la sag mag waaw ku dénk sa ndaw yàlla yàlla sàmmal la sag mag waaw amul benn werante waaw mu ni ko bàyyi jàngal ma ko mu ni ko xale nga mu ni ko bàyyi mu ni ko mu ni ko yowmal qiyaamati su yàlla attee jaam yi ñay dem ajjana di dem ajjana man danaa wax yàlla ni ko ba ma bëggee faratal jaamu la guddi sama bay bi moo tere bay bi ni do ma dooma ak yàlla nak kon nak penku bangok ngoog bangok baa ngoog ndox maa ngoog yaa xam kon nak bi qadril kaddi tuktasabul maali wa man talaba al ula fahira al layali يغوص البحر من طلب اللآلي ومن طلب laali فهر الليالي ula layali ku bëgg wurus da ngay ñeme xuus nuur ci biir géej gi waaw taruumul wasla summa tanaamu laylan laqad atmaata nafsaka bihi lmuxaali ñi bëgg àgg ci yàlla te guddi gi lépp da nga koy nelaw ñun yaa ngi nax sa bopp te mag du nax boppam tabaarakallah ahsanul xaaliqiin ku defee nag mbir maa ngi noonu jaamu yàlla yombul waaye itam nag soo waree jëm ci jaamu ko nga fexe xam xam noo koy jaamoo wut ku la dimbali ku la encadré ndax jaamu ko yomb na waaye jaamu ko jaamu ba ko gënal moo jafe jaamu ko it jaamu ba ko gënal baax na waaye nooy sàmme jaamu gi ba iblis du ci xëpp suuf nag foofa la jafeñ-jafeñ bi nekk moo tax Mawlana Sayid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum dégg naa ko mu wax ni mag ñi dañu daan xaritoog ibliis waaw iblis ah, xaritook moom waaw ah, mu ni waaye lu ñuy xaritoo xaritoo ak moom danañu ko nëbb ñett dañu ko nëbb seen sajaada nëbb ko seen kurus nëbb ko seen potu mu ni ci ñett yi rek la mën a jaar pour yàqal leen ah, kurus kurus daf koy gêné waaw kurus daf koy gêné moom iblis ndax kurus moo di allahumma bo déchiffrer allahumma mu jox la 106 ah kurus bu ñu nas bok nas nas nas nas dogu taaliba cheikh yi allahumma la lay jox muy 106 téméré per yi ak juróom benn sédé yi muy 106 kooku nak fuko iblis fekk rek xamni ci kawam la jëm motax tax du da koy da koy déranger boko dul denc rek da cey saw waaw sajaada bi daf koy gêner ndax iblis li mu mënul li mu mënul mooy mooy toroxlu suufeel boppam yàlla ne sujootalal aadama dafa ni maa ko gën ndax rëy rëylu du ma sujootal koo xam ni ban bu taq ci nga ko bind man nga bind ma ci safara te muy leer rëy googu moo tax iblis mënul sujoot moo tax sujaada bi ngay dóor sa jë daf koy gêner soo paree mag ñi ne la lemal waaw sa potu ndaa boo naana ñun la dëppal ndax boo ko dëppul bu ñëwee naan ci boo tànqaatee naan nga tooke sa bopp tooke ndaali mu ne ñett yi la ko mag ñi nëbb ñett yi bu ci bu ci jaarul yàqal la du la mën a yàqal waaw ko defee nag nitu yàlla yi du ñu moroom waaw war nga dem war nga dem ba xam fan ngay jar iblis pour bañ mu yàqal la waaw damay faral di wax ni léeg-léeg baat yooyu ñuttu yàlla yi di wax muy niru kaf nga gis ñi ferul ijji di leen weddi ma ni dañu xamul xew tu yàlla yi defal nañu yàlla lu ne ku defal yàlla lu mu gërëm lu nekk nag ba yàlla gërëm la léeg-léeg la ngay woyefale sa dëgg gi ci sa ruux pour bañ mu gaañ la la ngay caaxaane mooy di wax yenn baat yi nit ñi jàppe ko muy caaxaan fekk yàlla ngay xaqataay waaw mooy la yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon yàlla keroog ba ñuy xare ba ñuy préparé ghazwatu badrin mu xool noonu yeeg seen doole ak li ñuy disposé mu xool moom poigne doom bi ànd ak moom ni ñu néewee muy naafile di ñaan yàlla di insister ba na Seydina Aboubacrin yërëm ko jël kaala gi takk ci ndigg li muy insister ba ci yàgg mu ni xaaral benn yoon ma xaqatayloo yàlla mu doxe fa faj sunu soxla ñu noppalu منك اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد نكو يالا دال بواني بيغا في دسي تي كو سوف تي اي نيت بو سيتاني سيني نون اكرازي لين كين دوتو لا جامو تي كو سوف نياكغا نياكغا لا كو واخ خولال بوبو بوبو فاصون خولال بوبو فاصون واخين موي لسيد الحاج مالك رضي الله عنه واخون سخنا سا توك نيتي دارا جي جانغالي با يور يور جوت waxtu dem marché jot te dépense newul ci poche bi waaw ah, soxla soxna si ni ko ah góor gi bay boor nga yëngal kurus gi de ah, tey moom dara ñëwagul de mu ni ko ah naay yónnee ci butigu naar bi leb ko dépense ndax tey naar bee gën a gaaw yàlla waaw ah, baatu naar bee gën a gaaw yàlla boo ferul ijji da ngay defee ni Maodo dafa saalit mbaa dafa bokkaale fekk na ñoom dañu jàppe yàlla xarit waaw loolu bu yàlla dee xaqataay keroog xaqataay na keroog xaqatay na tabaarakallaahu façon yooyu dañ koy waxante ah la abdul malik ibnu marwaan defoon bu mosaan xëy bu ñu ko indi leen ndékkeem mu ni teg leen ko fële ba ma ndékki ci alquran ba noppi doog a jël ndékki li soxna si di ko yërëm lii lan la naagi na tën defagoo ci sa biir bi dara jëlal lu tàng mu ni ko soxna si may ma jàmm man alquran lay jëkk sama biir ba mu fees ma doog ca teg leneen bis nag fa mu toogee yor waqafam di jàng rek ndaw la ñëw ni ko eh, li xalli wal di mooy ñi nga xam ni ñooy nas ak di nocc ci pénc mi mooy sage yi nga xam ni ñooy daje di seet kan la ñu war a fal ku jukkoom doy nit ñi pour mu dirige mu ndaw li ñëw ni ko daal sage yooyu nee nañu yow la ñu fal mu ni ko ngani ma mu ni ko sage yi nee nañu yow la ñu fal mu daal di ub jukki alquran bi bu jëkk téye kaamil bi ni ko haada axiru ahdin bayni wa baynaka <laughs> ni alquran bi ah sama digganteeg yow tey fii lay yem nag nga dem ma dem amatuma sa jot ah, gis nga loolu dafay reetaan loo yàlla ndax ma nga leen di wan ni leen jàng alquran bi yiw bi ci man rek lay yem waaye diriger réew mi dox soxla jaamu yàlla yi réew mi am sécurité am stabilité réew mi naat jaamu yàlla yi tal jaamu yàlla seen boroom moo ëpp yoole dëkk ci kaamil bi waaw bu defee nag nitu mbedd yi di wër di soow lu nitu yàlla yi wax rek ñu weddi leen te fereguñu ijji waaw waaye dem leen wuti kilifa noppalu waaw leen wuti kilifa noppalu gis naa ci ñoo xam ne lañu bind yàkk ko Mawlaana Cheikh Abdul Qadir yi kenn xamul nu mu toll ci baatam boobu mu waxoon ni mulki mulki aadamu min mulkillah <laughs> waaw mu ni mulki sama moomeel man abdul qadir jeylaani moo gën a màgg min mulkillah ci moomeelu yàlla xam nga wax bi dafa garaaw waaye nitu mbedd du ko firi waaw moom abdul qadir jeyli radiyallahu anhu góorgóorlu na sell jukkoom ba am yàlla ba am yàlla am na yàlla yàlla nag moom li mu bind rek la moom yaay xool nag li yàlla bind ak yàlla ban moo ci gën a màgg yàlla moom li mu bind la moom Abdul Qadir Jili nee na man dem naa ba am yàlla waaw kon nag wax na dëgg moom yàlla la am yàlla moom mbindeefam yi la am kon kay yàlla mi mu am moo gën a màgg waaw noonu nga koy déggee mu simple fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin su ko defee kon mbokk yi xam naa tey dama façon yéene rek bañ a ubbi téléphone bi su ko defee daal mi ngi noonu boo xamee fan ngay jaar yàlla pour jaamu ko nga xam nan ngay def ba jaamu ga bañ a yàqu ndax iblis ponkalu mbër nit xam nit mbana ceeb suuru ko te mu ngi teg bëtam ci sa liibaru ceeb bi nga suur pour nga yekkal ko ci ma nga jonkoon këram di xaar xam na waxtu wa ngay togg waxtu wa ngay yekk kooko boo yekkee te yónnee woo ko ndabam bu waaxa ba fekk si la ci sa biir kër nga taaj sa njël yaag sa njaboot la muy def moo di faagaagal leen la fa nekk néew mu faxas ko su ko defee nag mu orienté la yonent bi sallallahu alayhi daan na wax naan nelaw yi boroom xam-xam moo gënal yàlla jaamuk aji réer ndax ki tëdd di nelaw te xam yoon wi bu jógee rek soobu ci yoon wi waaye kii fanaan nag di tël tëñe di làmbatu yoon te gisagul yoon mën naa sonn te du gis yoon waaw ah. tabaarakallaahu moo tax lu mu mën a doon rek am ca xam-xam ah, moo wóor lu mu mën a doon rek am ca xam ah, su ko defee nag loolu mooy li nga xam ni moom leen nitu yàlla yi yittewoo woon waaw jox seen bopp yàlla defar seen jukko ba mën a xaritoog yàlla dama dem ba àgg ci al mawtul ixtiyaar yi waaw te moo di dee rey seen bak rey seen bànneexu bakkan ba du ñu amati bànneexu bakkan dootuñu soxla cër dootuñu soxla daraja waaw koo gis bu ñëwee ca mbooloo bëgg ñépp xam ko bëgg daraja ja ñu jël ko jox ko ko rekk xamal ni du wéet di jaamu yàlla boroomam boo dee wét di jox sa bopp yàlla danga nga dem a dem ba lu dul yàlla doo ci amate soxla cër bu ñu la sédd nga ni doy na waaw salmaanul farisi radiallahu anhu waaw na mu meloon ci bi sallallahu alayhi wa na ko seede yonent bi wax ni salmaanu minna alal bayt waaw ni salmaan yàlla bool na ko tey ci alul bayt waaw ndax rek jukkoom bu ñu ko masaan jox pal rek mu gàntu ñu ne ko lii lan la lu ñu la jox nga delloo ko waaw mu ne ak pal nàmp ko dafa neex fer ca jafe kuy nàmp lu neex bu ñu leen nee tey lañ lay fereel nga tukkal àddina bi kon baleen ma rek waaw ah, ma doon ndong fekk na boobu dafa am lu muy nëbb waaw boobu yàlla yàlla ji mu yëg ci boppam xam boppam moo ko daqal post bu mu mën a doon ci pinc mi moo tax lu ñu ko jox rek mën a joxal keneen loolu ni boo ñëwee di xëccoo am na lu la rëcc waaw koo gis muy xëccoo am na lu ko rëcc waaw ku am yàlla ku am yàlla doo xëccoo te luñ la jox nga gàntu ko te tabaarakallah sanul xaaliqiin bu defee nag soo rayee sa bopp dootoo gis sa bakkan dootoo gis cër na la wër ni dund ga ba faw waaw tax siinu aw saafin waaw rafetal sa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen xëccoo bu leen buuxante pour jege ma jaru ko defar leen seen jukko rek ëllëg yowmal qiyaam ñi gën a rafet jukko ci ñi yéen ñooy dend ak man sama dëkkuwaay kon jeex na waaw ko defee nag defar sa jukko waaw yonent bi nee na daal amul kenn koo xam ni wërsëg wala yàlla jox mën nga ca tereel jaamu yàlla yëpp nee mënul nekk mu ni waaye kenn ku ne nag mën nga defar sa bopp ba sa juk ko rafet ba jukko ja nga teral ca ñëpp wërsëg wi mënul mëtale waaye jukko ji moom mën na mëtale ñëpp fa tabaarakallah tanul xaaliqin ko defee daal mbir maa ngi noonu ko defee daal mada dahru wal ayaamu wa dambu xaasilun وصاح غراب البين معلم رحلتي آه. مضى الدهر والأيام والجسم عابد سوى الله والرحمن خالق جثتي مضى الدهر والأيام والقلب شاكر سواه ومنه الدهر جلب معيشتي مضى الدهر والأيام والذنب حاصل على أنني مملوك نفسي وشهوتي ألا من ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فأرأب ما أثأيت ساعة غرتي آه، تبارك الله حمنا إميشون بدي دلو شرك نيو باركلو تي أبيات يوي مولانا شيخ الحاج ماليس ويلي أم صلو دال بأم صلو موي ألا عمر ولا مني سماي فن سما سماي أت وجيحنا تك مستطاع يعني أمستطاع رجوعه اسك مني سينكو دلو سيوات ليلا أمستطاع رجوعه مني مستطاع رجوعه أبا ما أسأيت مني بما جان جان ريباري ياكو ياكو ينغا خمني مو ياكو ساعة غردتي تي سما جامونو تبارك الله سنو الخالقين نما لما أمون تي منيت جيخنا بكوي يالنونو يالا دفن ديغ اك nanu yàlla xiir ci boppam ñaanal defal tawfiq defal ñu taysiir tabaarakallahu seen mbokkum taalibi alxaaji abdul aziz fall moo ne woon ci daara ji allahuma arham ibadaka wa biladak wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu